asalaamaaleykum. waaw ah, Oncle Bara. Fara. waaw ah, na ngeen def. ça baax yaa ngi ci jàmm. mën naa toog. doo taxawal. <laughs> soo Fara kañ ngay changé ñàkk nga keex sa tamit. suba ci ngoon ko euh, noo def. ci yàlla baax kay. dama indi woon benn téere pour nga ñawal ma ko tey. baax na baax ana ana téere bi. baal ma de yéex bàyyi noonu. waaw téere bi bari kii la nga ko téere bu téere bopp wala bini bini bi mooy ndéw bi wala téere loxo. du ci benn dund gi du loxo. damaa bëgg nga ñawal ma ko te dama koy suul leer na. ah téere mooy bu dëgër dëgër bu gàtt bii moom mooy booy boobu xam naa loolu. xaaral xaaral xaaral am ay conditions avant conditions yi nag dama lay fàttali ne sa liggéey bii nga nekk di du liggéeyu wax. liggéey yu secret la. waaw ah, loolu dëgg la donc soo koy def da nga war a ànd ak bii attends rek te gis nga koñ bii ma dëkk ñëpp a fi xam donc xam nga de samay mbir du siiw leer na. xamala la day ñëw fekk saraxole mu lal mer ngàddu mer ngàddu bi ba pare mu nekk fi nekk uude nga ñëw bëgg ko jàngale liggéey bu mu nekk di def fi xam nga yaa ngi dégg ante yéegi ne yow du yow yaa koy jàngalu moom saraxule bi la la nekk di liggéey man damay aw nga ñëw nga sol séeré bu ñuulu taxaw taxawaayu baaxooñu ma sol bu weex yamal si bu ñuulu ma yam ci bu weex yaa ngi dégg ma awalu rek yow du ma jàngal lan la nekk di aw yaa ngi dégg li nga bugg aw ma awal rek nga sulu ko fay ko ñaar téeméer sa yoon nekkul sama lu ñuul yaa ngi leel te kenn waxu ko boo waxee sa leelu bàyyi moo ko gën a leelu te kenn waxu ko yaa kenn wax ko koñ bi yëpp ñu ngi wax ci leelu baayam baax na eh, liggéey bu mu ko di ma defal la bu dëgër dëgër lan nga bëggul téere bopp bini bini bi wala loxo wala lan wax lay bañ awal ma téere fi gars yëpp nañ farawude foo dem ñu saraxole bi gars yi ñëw fi yëpp maa udal maa udal gars yi waaw kon di jaamay jàngale dégg nga xam naa ne sa job la moo tax ma ñëw fii waaw kon nag bàyyi ma job suma job mais kaay ma wax la téere bi nag ah lan la loolu mooy ko téere bi soo koy ñëw da nga war a jooy da ngay lan da ngay lan mën na nekk jooyu pour lan la soxna si far nga mus a gis mu aw tere mu jooy pour lan mu jooy. parce que da war a jooy loolu soxla. man maa ngi yow ut suma mburu def ci karité ba mu fees ma dóor ko mu maa ngi yow ak jàmm ngeen ne nag mu nekk mu jooy. xam nga lu tax mu soxla ay jooy parce que téere bi li ma ci bëgg mooy. dama war a rey nit leer na. kan kan mu rey kan. yow eh sa yoon nekkul si ku may rey da nga ewu dong moo tax ma andi ko fi doo sëriñ. liggéeyal ma soo ko mënee soo ko mënul nga wax ma ma jug dem ci keneen. jaru ko gis nga ëw kat boo gisee rek moom loolu mu nekk mu nekk liggéeyam man suma ma mu nekk ëw du ma sëriñ man su ma yoon nekk mu dee mu dof su ma yoon nekku ci loolu. nga yem ci baax na léegi nag loolu 1000 francs la woon de waaye bu fekkee affaire bi léegi saraxole bi moom mu ngi ko defee brique li boo xale yi naan brique. lan mooy brique. mooy booy bu law man li ñu wax brique. mooy 1 million quoi lii <laughs> mooy xurtu xolle ci saraxole yow fara neex de wax na la ko. da nga rek nag. yi lépp loolu la ñuy wax ci koñ bi naan fara ak a neex ak a neex boo ko ñamee. doo ko doy yow bii rek yow bi wala bëgg na fay. fara gis nga macha allah. waaw gis naa la moom wax dëgg yàlla yow tamit neex nga lool. ok sama jëkkër nopp na ma. ba pare ñaareel xaritu jëkkëram laa. donc lu ma laaj sama jëkkër dafa koy jox. un million yii mën naa ko. mais dangu du laal yotaa. duma laal biir duma la ko fay kon yow duma la yow duma la laalal fii tey pare dama ne la doo laal million te danga koy ñëw force <laughs> ñaareel mu bëgg a rey ndey jëkkër ji moom bëggul fay birik na loolu kay amul benn problème léegi da koy ñëw force ah ngeen baalu ma koñ bi ngeen baalu ma ngeen ah dimbali ko rek ah, ana ana ana ana ndere ngi jaay fii banaana yi foo leen fekk rek seen lammi ñu nekku ci poste bi kaay leen ah kii dafa bugg a rey ndey jëkkër ji eh! mu wax na ko wëli ni da koy suul guddi la ne ko ko suul ma ko kon encouragé mu ne ma maa jom ko moom da koy suul ma ne ko ah man de zéro ne laa ma ne ba buggee ma uwul la moom de rey ndey jëkkër ji ba ci ko dara kàmm mu ngi nii dafay dee benn yoon nee na nag moom du fay birik man tamit du ko owuli dara yow da nga ko fay ah, eh! bu guub ko moo ngi nii baax na. bu kaay léegi ngeen ñëw nga. lan la noppi. yéex na yéex na noppi yow bi ah, baax na kon léegi brique rek la koñ bi dañ maa xam li ngay def nii. pour ñëpp ci liggéey yi maa bëgg yàq. yow yaa nekk yàqkat bi booleeg waa koñ bi de yow yàqkat bi yow la yow yàqkat bi yow la man kame naa la de dinaa fay ñëwal baax na mille ah, baax na un million baax na inshallah allahu yow ki dangay ngay fay birki bi wala ma wax koñ bi. biriki rek. wala ma waaw gars yi xam nga xam nga foo fekk pële bu ko Conakry dafa mun a fenn mooy. gars yi nekk du ñaw ma nekkuma tailleur. dégg nga yaa ngi bëgg a suul rey ndey sa jëkkër mu awari la nga dem nga suul baax na kon waajalu birik bi ma wàcc au au kii bi baax na bisimilah <laughs> ku baax ku la xamee laa foo fekkee ñaareel day bëgg ay suulu ay sangu ay defe affaire yooyu noonu ci buntu kër gi suma yoonu nekku ci man saraxole la laa dégg nga ante yi gene xirri ko la bare maa jom lan nga wax pour mu jooy jooyu awo a jooyu ñaareelu wala jooyu ñetteelu wala jooyu ñetteelu bàyyi ma ñamal benn jooyu awo rek nga xool. lan laa doyee awo nekk ñaareel. bàyyi ma laal bi nga xool. xalal ma dóore la jooyu ko am buñ la dóoree karité fii boo jógee fële. waaw jooyal la essayé ma xool. <laughs> ku baax jàmm na ku mën a joxe ñamu jàmm na mu su te jàng rek lu mu lu mu laal ci awo bi rek mu laal ko ci ñaareel bi rek. s'il laa ilaha ay waay jàmm na waay la moo ko yóbbu. Fara baax na bu aaw bi doxul. déjà ku baax ki nga njëkkee arrangé wu ma parce que aaw bi mosul baax. aw waaw ah. mosul baax. Euh, bàyyi ma lal la bu ñaareel bi. defal bu ñaareel ma xool testé. ay waay waay waay ay ay alaaji bi waay waay. dina jooy dina jooy <laughs> yow de yaa ngi may ah, ak a baax woon moomu nekk na ku baax ah. yow ñaare nii la ñuy jooyee kan moo la ah. Ah. bi ak baaxoon moom dafa nekkoon lu ñuy jooyee fii ku mu gis rek mu nuyu la na nga def koñ bi ku baax jéem la. xamante ma delloo la ci awo bi rek bàyyi ma delloo la ci awo bi rek. <laughs> fara duni jooy baaxul dara baaxul ci changel jooy yi say daa war a génn. jooy de. jooyal su ma ñëwee nga wan ma ko après naa bi jeex na. da laa jooy da yomb rek jooy da ko yomb rek ma tooyil ndey bët yi rek su ñëwee mu nuyoo ngeen doon